laxasaay yi nga xam ne ñoo euh, ñoo si ànd maxtum yeeg kaala yeeg yooyu waaw euh, euh, exposition julli géej gi nag depuis 2001 ba tey daanaka maa ngi fi di di di ko def di ko daxawal ren nag mu nekk benn particularité ñu indi ay tableau thématique tableau thématique yi maanaam li tax ma raxu si si si esthétique bi la nga xam ne moom mooy retracé maanaam jaar-jaaru ku tedd gi moom la ñuy retracer waase à travers des tableaux ndax fii si tableau bi nga xam ne mooy Biro Ndar fii sëriñ bi daanaka mu ngi si leeral julli ga mu julli Biro Ndar nga xam ne fa sëriñ si nga xam ne ñoo fi newoon ak ña newoon si Afrique occidentale française nekkoon ay burkinabé wala nekkoon ay guinéen wala nekkoon ay congolais nekkoon si yeneen dëkk. maanaam nasaraan si woo sa bureau ndar ndax booba jamono jooju gu palais bi moo fi nekkoon palais Afrique de l'AOF euh, euh, Afrique occidentale française bañ fi ñëwee ñu weddi fi yàlla fii weddi fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam weddi fi alxuraan Sëriñ Tuubaa ñëw moom si àll boppam signé pour la revaloriser euh, revaloriser maanaam islam. maanaam si ñëf xul wala axat allahu samad lam yalit wala yulat walam yëkkuloo ko fan axat loolu nag moo ñu musal si maanaam buumu njaam gi nga xam ne tubaab gi moom lañu ñu takkoon buumu njaam gi moo ko dog fii nag ñuy wane almaami Samori Touré ba ko ba ko nasaraan si maanaam euh, euh, euh, déporté jëlee ko Guinée mu ànd ak ay espace fii ñu wane maanaam gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon Jean Marie Moutet maanaam faatu woon fii nii en 1902. fii nag ñu ñëw yegg si si Serigne Touba wax maanaam ab murit ne fii de ab murit ndax xelam dal si faatoom bés bu sa bés bu sa borom dogalee li nga xam ne moom la dogal muy faatu gi na ko wér ci ngi ne moom si yàlla boppam ak fayam moom wér na ndax su duggee si biir suuf maanaam bañ teg ko su kusu bàmmeel nee na ñaari mala yi ki nga xam ne ñooy laaj si biir bàmmeel nee ñu xam ne ni xel na man sa wàll boobu man maay sa wasila la yow ñoom xam nañ ko ba nga xam ne laaj dañu leen laaj su boobaa yow ni ci mucc mooy mooy mooy cadre gii te lii nag moom daanaka ab murit moom war na ko sóor saa ne mel ni sëriñ bi bëgg nga mel ko nga xam ni incha allah bopp di nga mën a wàcc lii mën laa wàcc fii nag moom maanaam akub fal ak fol yi la ne wér na ndax xëy na ñii sax ndax fii dafay wax ni ne su toon deru nit ku ñu su toon doomi aadama du ma wàcc genn saa ko suuf bu leen xeet sama der sama der gu ñuul gi ba tax maanaam ngeen bañ maa sàkku ndax man mii maay jëwriñ yonti gu wér goo xam ne moom ñëpp xam nañ ko génération bu dikk na maa ko tax a ñëw fii jamono Sëñ Modou Moussa la si gasum raay bi ak nasaraan si fii jamono Sëñ Fall ak Senghor premier premier gouvernement Sénégal a ngi mu ngi Senghor ko fal kii euh, euh, Sëñ Fall ko fal astafirullah fii Sëñ Abdoulaye euh, Cheikh Abdoulaye Ahad ak Abdou Diouf fii Sëñ Saliou ak Senghor ak kii Abdoulaye Wade fii sëñ Sidi Mokhtar ak ki nga xam ne moo fi ne muy Macky Sall dem nañu ba nga xam ne nag maanaam foofu gën naa néewati sax gën naa tuuti sax waaye fi nga xam moom la ñuy wax ne première puissance mondiale mooy les États-Unis ñoom ñi seen ne moom la ñuy def aux États-Unis ñoom ñi dañ ko jël léegi sax dugal seen constitution nga xam ne 52 états yëpp ñoo koy ñoo koy ñoo koy màggal mu nekk journée chômage pays ndax nit ku nekk xam nga ni xil ne États-Unis moom xamuñu dara lu dul moom xaalis dong la ñu gëm mooy time is money ba nga xam ne ñoom seen wàllu bopp wax ñu sam wax ñu sam waxtu waaye minute sax mënuñu ko perte ngir maanaam ay milliards waaw waaye nag ñoom suñu demee ba jël journée su may paye dugal ko si seen constitution ngir jëmmi jëm jëm ji Serigne Touba nga xam ne keneen ku mu mën a doon si États-Unis ak kilifa goo mën a doon mënoo fa organiser leen luy jëm si wàllum lislaam si mars si goo xam ne ñoom seen wàllu bopp maanaam ñu si kon nag loolu nag Serigne Touba moo ñu ko may waaw yeneen ne yëpp a ba si chinois yi nag ñii nag ñoo jar a moytu lii màggalu Touba la woon sa Chine ay Chinois ñoo ko def waaw soo dégg nag Chine mooy ñoom seen wàllu bopp àdduna wërngal këpp ñoo fa gën a surpeuplé ñoom nëpp suñu wëlbatikoo nag gëm Sëñ Tuubaa nag su boobaa nag li sëñ bi waxoon maanaam dana dikk waaw mooy kon su boobaa nag ñun nga xam ne ñoo fi ne maanaam sëñ bi soqee si ñun doon nit ku ñun nu ñun ah su yokk suñu pas yëpp ndax xam ne waa yaa ngi ñëw fii nag naari la ñu ngi day léegi dañuy kuréel sax far naar yi mooy waa euh, naaru gànnaar yi nga xam ne ñoom ba ba nasaraan si lottee dañuy ne dañuy ne jox lañ ñu ko ndax ñun ay sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu waaw te naar daanaka nit ñuul am na maanaam inférieur degré d'infériorité xëy na dañoo njortani su yegsee foofa day feeñ mu dem fa nag jommal leen mooy waa déemaan déemaan yi ngay dégg ak euh, waa dalal xaaj yi ak ñeneen ñi xam ne ñoo soo so topp waaw nasaraan si nga xam ne nag ñoom ndeysaan wa. waaye li dëgg du dëgg olof. waaw ba sëñ di wax jamono dana ñëwi. Uh-huh. murid dëgg du dëgg dëgg la. mooy loolu nga wax ci sinwaa yeeg yooyu. yooyu ak ñooñu nga xamante ni cosaanoowuñu bi. waaw day andiwaat histoire waxi Serigne Touba ja ni jamono dana ñëwi. Uh-huh. murid dëgg du dëgg olof. kon nag maanaam waxi Serigne Touba foo ko wax am na ay seere xam ne ñoo tax seen wet di ko seere